حب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
الله asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu kenn ku nekk ci yéen di ko gërëm di ko sant waaye nuyu bi nag maa ngi ciy jiital yàlla sunu boroom moom mi ma may ma mën a fekkee te mën a tal ba nekkaat fi tey ji di waxtaan ak yéen ci émission boobu ñu dippee kàddu gu sell gi te lépp li nga xam ne ñu ngi ko ciy waxtaanee lépp li nga xam ne ñu ngi ko ciy wax ñu tibbee ko ci kàddu gu sell gi nga xam ne moom lañu su yàlla sunu borom jox ngir mu ñuy gindi di ñu tette fii ci àddina ngir suñu dund mën a dippoog li nga xam ne mooy bëgg-bëggam yu sell yooyu te loolu bu amee amul benn sikki sàkk ne dinañu barkeel moo tax maa ngi ñaan yàlla wàccee ay ngëneelam ak ay xéwalam ci sa dund yow mi nga xam ne yàlla baaxe na la ba nga mën a déglu kàddu gi maa ngi ñaan it ngëneel yooyu ak xewel yooyu yàlla wàccee ko ci dëkk bi yépp ci réew mi yépp di Sénégal ngir jàmm rek man fee sax ndaxte ci jàmm la lépp xaj ci jàmm lañu mën a waxtaanee ci mbirum yàlla ci jàmm it lañuy toppee yàlla te di ko déggal ginnaaw loolu mbokk yi tey nag dama ñëw ngir waxtaan ak yéen ci kàddu gi yàlla ma tibbee ci benn xew-xew boo xam ne mu ngi ci injilu Luk muy xew-xew boo xam ne wax dëgg fa yàlla daf ñuy woon doomu aadama bi nga xam ni bàkkaaram daf ko sonnal doomu aadama bi nga xam ni wóor na ko ne digganteem ak yàlla rataxul ni nga xam ne noonu la ko yàlla bëggee waxuma ni mu ko bëggee moom de waaye ni nga xam ne noonu la ko yàlla bëggee te itteem yépp bëgg-bëggam yépp mooy wut saafara ci loolu mooy wut ni nga xam ne mën naa gën a rataxal digganteem mook yàlla sunu borom moo tax dama bëgg ñu dellu si ci kàddu gu sell gi ndaxte kàddu gu sell gi mooy kàddu gi nga xam ne moom la ñu fi yàlla bàyyil ñu gën ko xam ci turu bible bi ngir ñu ciy sukkandiku te di ci jànge ndaxte yàlla sunu borom moom ci boppam wax na ci kàddu gu sell gi ne lépp li ñu ci bind dañu ko bind ngir suñu njëriñ lépp lu ñu ci bind dañu ko bind ngir ñun ñi doomu aadama yi ñu koy jàng te ñu bu ñu ko jàngee ba noppi ñu mën ko topp ndaxte topp ko ci la ngëneelu yàlla yi nekk kon bu ñu dellusee ci kàddu gu sell googu ñu jàng ci injilu Luk saar juróom-ñaar li ko dale ci aaya fanweer ak juróom benn lii la ñuy wax ci benn xew-xew bu amoon ci këru kilifa diine ca jamono yooyu ñu koy woowee Simon lii la téere bu sell bi wax mu ne amoon na ab pharisien bu naan bu ñaan Yeesu mu ñëw lekkandoo ak moom Yeesu dem ca kër waaja toog ca lekkukaay ga fekk amoon na ca dëkk ba ba jigéen juy mooy yàlla mu bi mu yëgee ni yeesoo ngay lekk ca kër pharisien ba mu dem yaa yóbbaali yank bu ñu defaree doj bu ñuy wax alabataar te def laj koloj bi jigéen ja agsee mu taxaw ci kanamu tànk yeesu di jooy noonu ay rongañam tooyal tànk yeesu ya jigéen ja di leen fomp ak kawaram te di leen fóon it di ci sotti laj koloj mbokk yi ñu taxawandi fii aaya yi nga xam ne jàng nañu ko dafa am lu bari loo xam ne daf ñu ci daf ñu ci yee bi ci njëkk mooy ni ab kilifa diine la ñu koy wax pharisien ca jamono yonent yàlla yeesu ah ay nit lañu woon yoo xam ne xamoon nañu yoonu Musa nit ñi nawoon leen nit ñi doon leen déglu nit ñi doon leen topp ñu doon daal tabaar fakal la ay kilifa diine yu mag ca jamono jooju waaye ñoom dañu amoon jafe-jafe ak ki nga xam ne mooy Seydina Isa Yeesu Krista ndaxte Seydina Isa Yeesu Krista dafa gisoon ni kilifa diine yooyu ndeem sax xam nañu kàddug yàlla xam nañu yoonu Musa te ñu ngi koy jàngale waaye nekkuñu di ko dund ñoom ci seen bopp li nga xam ne moom la yàlla bëgg ci kàddu gi muy yërmande ak mbëggeel ak cofeel bi nga xam ne moo nekkoon seen wareef ñoom kilifa diine yooyu ñu koy wane jëmale ko ci mbindeefu doomu aadama yi ngir wommat leen ba ñu mën a dellu si ci yàlla Seydina Isa Yesu Krista dafa gisoon ni loolu nekkul ci kilifa diine yooyu kon kenn ci ñoom daal di ko prier ngir mu ñëw lekkandoo ak moom këram ñu gis ni waa jooju kat mën nañoo xalaat ni moom wuute na ak kilifa diina ya ca des ndaxte kon moom am na fu mu teg Seydina Isa Yesu Krista am na wet bu mu ko wekk ba mu prier ko ci këram ngir mën a lekkandoo ak moom waaye bu ma àggalee jàng yi jàngale bi bu ma demee ci saar yi nga xam ne ñoo ci tegu ak aaya yi nga xam ne ñoo ci tegu dinañu gis ni waa jooju kat déedéet li taxoon mu prier Seydina Isa Yesu Krista du woon ni daf ko bëgg du woon ni dafa bëgg a dégg kàddug yàlla du woon ni dafa bëgg a sax wéccantoog moom xalaat ci diine wala ci xam-xam bi nga xam ne dafa jëmale ci yàlla waaye daf ko bëggoon lalal ndëgg sërëx ngir wone ni waa jii kat day li muy woote motu ko wala du sax moom looloo taxoon mu prier ko waaye gis ngeen yàlla sunu boroom dafa am nu muy liggéeyee ñu ne ñu waa ji bi mu prier Seydina Isa Yesu Krista ngir mu ñëw lekk si ci këram booba yàlla am na keneen ku mu prier moom ci boppam waaw yàlla ci boppam am na keneen ku mu prier ñu ne ñu ndaw la woon si loo xam ni jànq la bokk wala jigéen la boo xam ni da doon jaay boppam ci jamono yooya kilifa diine ba prier na Seydina Isa Yesu Krista ngir mu ñëw lekk këram waaye yàlla ci boppam am na keneen ku mu waajal prier ko ngir mu mën a dajeek Seydina Isa Yesu Krista kon Seydina Isa jóge fa mu nekk di dem kër kilifa diine ba ngir mën a fa lekkandoo ak moom yàlla sunu boroom wax soxna sa ca fa mu nekk ne ko jógal te nga dem ca dëkk booba ndam sax moom soxna si bi muy dem wax dëgg fa yàlla comme jigéen la woon boo xam ne day jaay boppam leneen a ko fa yóbbu woon amaana dafa demoon marché ngir mën a jënd ay yére ngir mën a jënd ay dàll ngir mën a wut ay takkaay ngir mën a wut ay lekkoloñ ndaxte liggéeyam ca jamono yooyu loolu la laajoon solu ba ba ba jekk te di xeeñoo lu neex amaana looloo ko fa yóbbu woon waaye li ko tax a jóg ak li yàlla namm ci moom ci bés booba dafa wute mu daldi dem Seydina Isa Yesu Krista daldi agsi ci kër kilifa diine ba mu dugg ci kër kilifa diine ba téere bu sell bi wax ñu mu daldi toog di waxtaan ak waaja noonu soxna si dégg ni Seydina Isa Yesu Krista ma nga xam ne daf ko yàgg dégg te di ko yàgg seet mu ngi ci dëkk booba te kon nag tey la tey la war a giseeg Seydina Isa tey la war a taxaw ak moom tey la ko war a wax ay soxlaam tey la ko Seydina Isa war a fajal ay aajo ndaw sa daldi bàyyi lépp la nga xam ne ma nga ca woon ngir mën a dem fekki Seydina Isa fa mu nekk waaye nag dafay am jafe-jafe ndaxte moom jigéen la buy jaay boppam te Seydina Isa Yesu Krista fa mu nekk këru kilifa diine la te kilifa diine yooyu xel xalaatul ñuy prier jigéen juy jaay boppam ci seen biir kër kon nan lay def ba giseeg Seydina Isa loolu mooy laaj bi te loolu moo am solo kon mbokk yi dinañu déglu tuuti cant ñu dellu si ba xool nag ndaw soosu nan lay def ba giseeg Seydina ak Isa te bu gisee ak moom nan la soxlaam wala aajoom di fajoo nañu déglu tuuti cant الحب اللي عمره ما يشمت أبدا أبدا وبينسى ويغفر إساءات آه لا يفكرنا باللي راح أبدا الحب اللي عمره ما يشمل وبينسى ويغفر إساءات آه لا يفكرنا باللي راح ولا يفتح ماضي وجه jërëjëf mbokk yi ci cant yooyu nga xam ne déglu nañu ko ñu dellu si waat nag ci li nga xam ne mooy waxtaan bi nga xam ni tàmbali woon nañu ko ak yéen kon soxna si dégg na ni Seydina Isa Yeesu Krista mu ngi ci kër kilifa diine ba léegi bëgg-bëggam yépp mooy gis ak Seydina Isa Yeesu Krista waaye kër ga mu ne du kër goo xam ne dañ ko fay dalal kër ga mu ne du kër goo xam ne dañ ko fay yaatal ndaxte kilifa diine yooyu dañu doon jàppe seeni bopp nit nit ñu sell te jigéen ji ndegam day jaay boppam du nit koo xam ne war nañu koo demlanteeg moom di nit koo xam ne war nañoo gis muy dugg ci sa kër xam nga booy fàttaliku yow mi may déglu ne woon naa bi may door ne loolu moo nekkoon jafe-jafe wala bokkoon na bokk ci jafe-jafe yi nga xam ni Seydina Isa amoon na ko ci digganteem ak kilifa diine yi ndaxte yërmandeeg yàlla ba mbëggeelug yàlla ba cofeelug yàlla ba ci xar yooyu réer ci doomu aadama yooyu nga xam ne dañu nekk ci lëndëm seen bàkkaar daf leen sonnal yàlla tànn ay góor ak ay jigéen yabal leen ngir ñu dem woowi ñooñu ne leen ñu dëpp ndaxte yoon ba ñu nekk du yoon ba gën ñu dellu si ci yàlla ci kaw yërmande ak mbëggeelug yàlla waaye nit ñooñu bañ ba tëdd ci suuf ñu leen di woowee ay kilifa diine duñu gis lu dul seen sellaayu bopp duñu gis lu dul seen diggante ak yàlla ñoom ndegam sax diggante boobu wax dëgg fa yàlla melul na nga xam ni noonu la ko yàlla bëggee kon jigéen ñu mel noonu dañoo sonnoon ci jamono yooyu comme jigéen ñu mel noonu ak góor ñu mel noonu ci suñuy jamono dañoo sonn waa bu dee ki nga xam ne dafa feebar ki nga xam ne mooy médecin bi ki nga xam ne moo ko war a faj ne du ko jege du ko laal ndaxte dafa feebar ki feebar nan lay wére ki feebar nan lay wére kon ñun bu dee dañuy woote xam yàlla bu dee dañuy woote topp yàlla kon suñu xam-xam boobu ak suñu topp yàlla boobu moo ñu war a mën a gindi ba képp ku ñu gis ci yoon boo xam ne yaakaar nañu ne du ba gën du ba yàlla bëgg ñu wax ak yow ñu jege la ñu gindi la ñu tette la ci kàttanu xel mu sell mi sukkandiku ci kàddu yàlla ba nga mën a dippeeku wàññeeku dellu si ci yàlla sa borom waaye bu dee ñun dañu ne ay kilifa diine lañu te duñu laal duñu jege bàkkaarkat mais bàkkaarkat boobu nan lay génne ci ay jafe-jafe moo tax bu ñuy jàng téere bu sell bi boo jàngee ci téere bi nga xam ne moom la ñu dippee rom saar ñaar li ko dalee ci aaya fukk ak juróom ñaar jëm kaw da ngay gis yàlla di wax ak kilifa diine yu mel noonu mu ne yow mi dippee sa bopp kilifa diine yow mi ne da nga xam bay xamle yow mi wax ne yaay leeru ñu nekk ci lëndëm bi yow mi wax ne yaay wommat ñi nga xam ne ñooy gumba tey jàngale ne bul sàcc sàcc baaxul yàlla nee na mbaa doo sàcc yow mi jàngale ne bul njaaloo njaaloo baaxul yàlla nee na mbaa doo njaaloo kat yow miy jàngale ne xërëm baaxul bokkaale la yàlla nee na mbaa doo takk téere yàlla nee na mbaa doo yoxosu guddi di dem foo xam ne yàlla buggu ko waaw kon dañu war a dellu si xel yi dañu war a delloo si xel yi ci bëgg-bëggu yàlla yi diine baax na waaye yërmande mooy lépp mbëggeel mooy lépp soxna si nag bëgg-bëggam ak soxlaam taroon na tar boo xam ni loolu mënu koo téye waaw mu jege fa mu nekk ñëw daldi ne saraax ci kër kilifa diine bi ne fa saraax bugg a toog bi mu agsee gis na kilifa diine bi gis na Seydina Isa Yeesu Krista waaye dafa jubal ci Seydina Isa Yeesu Krista lu tax ndaxte xam na ni kooku mooy ki mën a faj jàngoroom xam na ni kooku mooy ki mën a faj soxlaam ndaxte jàngoroom du jàngorow yére de yaram déedéet ruuwam moo am jafe-jafe ruuwam moo am jafe-jafe te jafe-jafe yu ruu du kilifa diine moo koy dindi jafe-jafe feebaru ruu du kilifa diine moo koy faj ki koy faj mooy yàlla sunu borom te faj boobu nag daf ko jël daf ko jël teg ko ci loxo yi ki nga xam ne mooy Seydina Isa Yesu Krista lu tax ndaxte téere bu sell bi daf ñu wax ni feebarug ruu tilimaayug ruu ñuulaayug ruu te la ko waral di bàkkaar la koy dindi mooy deret bu deret tuuruwul njëggalu bàkkaar mënut a am te bu njëggalu bàkkaar amul ruu mënul sell kon sellaayu ruu mu ngi jaar ci deret bu tuuru deret boobu war a tuuru nag ngir njëggalu bàkkaar yi Seydina Isa Yeesu Krista moo ko tuur ci bant ba waaw loolu moo nekkoon mission Seydina Isa Yeesu Krista ñëwul ngir doon beneen yonent déedéet yàlla yónni na yonent yu bëree bëree bëree bëri bi Seydina Isa Yeesu Krista di wàcc ci àddina boobu fekk na nit ñi xam nañu bëgg-bëggu yàlla yi ak la muy tere loolu la yonent ba wax waaw yow bani aadama yàlla xamal na la li mu bëgg ak li muy tere xam nga ko kon xamle loolu taxul woon Seydina Isa ñëw déedéet moom dafa ñëw ndaxte yàlla gis na ni naam sax nit ñi xam nañu li baax ak li bon xam nañu li sell ak li sellul seen ruu dafa tilim ndax seeni bàkkaar te li ñu soxla nag ñun doomu aadama yi muy man muy yow muy keneen li ñu soxla mooy liy setal suñu ruu ndaxte fekk ruu bi setul mënul jege ci yàlla te nag téere bu sell bi daf ñuy wax ni ruu bi ci yàlla la jóge yaram bi bés dina ñëw ñu delloo ko ci suuf sa nga xam ne fa la jóge woon waaye ruu ba day dellu ci yàlla mi nga xam ne moo ko moom yàlla nag bi mu koy def ci ñun amul woon benn tilim tilim kon boo ko koy delloo mu tilim ruu bi dina am jafe-jafe soxna si loolu la xamoon moo tax bi mu ñëwee it mu jubal ci Seydina Isa téere bu sell bi day wax yow mi may déglu ne di ngeen ma set di ngeen ma wut yàlla sunu borom mooy wax di ngeen ma wut di ngeen ma set te di ngeen ma gis bu ngeen ma seetee bu ngeen ma wutee ak seen xol bépp ak seen kàttan bépp soxna si wut na Yeesu Krista soxna si seet na Seydina Isa te gis na ko agsi na ci moom agsi na ci moom ndaxte loolu moo nekkoon ay bëgg-bëggam kon mbokk yi ginnaaw soxna si seet na wut na Seydina Isa ba agsi ci moom léegi dinañu xool nag nan la ko Seydina Isa di fajalee ay soxlaam dinañu déglu cant bu ñu paree ñu dellu si ci li des ci waxtaan bi
الحب ده من قلب الله شمس ودفا ونغم وحياة الحب ده من قلب الله شمس ودفا ونغم وحياة ماله نهاية وماله حد أصل ده حبه نبعه الرب أصل ده حبه نبعه الرب أصل ده حبه نبع الرب الحب اللي ما هو kon jërëjëf mbokk yi ginnaaw cant yooyu nga xam ne déglu nañu ko dinañu dellu si ci waxtaan bi nga xam ne ci lañu nekkoon boobu ba léegi diggante kilifa diine boobu nga xam ne dafa prié woon Seydina Isa Yeesu Krista këram ak soxna soosu nga xam ne it dafa ñëw ca kër ga ndax ay jafe-jafeem ndax bàkkaaram bi nga xam ni xam na ni kenn mënu ko ko baal kudul Seydina Isa Yeesu Krista bi mu ñëwee téere bu sell bi nañu dafa jubal ci Seydina Isa Yeesu Krista laj ko lañ ba mu yore woon ba mu jëndoon mu daldi ko tuur ci tànk Seydina Isa ya di jooy ay jooy yu métti te di ko fomp ak kawaram kilifa diine ba nga xam ne moo prié woon Seydina Isa di leen xool bi mu leen xoolee ba mu yàgg mu ne man de gëm naa ne nit kii du ab yonent waaw ndaxte bu doon yonent la dina xam kan mooy ndaw si waaw maanaam ci gis-gisam moom kilifa diine bi bu doon Seydina Isa ab yonent la day daw ndaw si du jege ndaw si du so du du nangu ndaw si jege ko waaw mais bu dee loolu mooy yonent kon ci kan lañ la yónni bu dee yow yonent nga yow kilifa diine nga te da ngay daw bàkkaarkat yi doo nangu bàkkaarkat yi jege la mais ci kan lañ la yónni man dama yaakaar nag ni bu ñuy yónni ab fajkat yónniwuñu ko ci ñi nga xam ne dañoo wér waaye dañ koo yónni ci ñi nga xam ne dañoo feebar waaw bu yàlla di yabal ab yonent yónniwu ko ci ñi nga xam ni dañu nekk ci ndigalug yàlla yi guddi ak bëccëg kooku kay dañ koy jaajëfal rek mu wéy ci la mu ne bu ñuy yónni ab yonent dañ koy yónni ci bàkkaarkat yi waaye gis nga gis-gis bi nga xam ne bu doy waar la bi kilifa diine gi amoon mu ne kii du ab yonent ndaxte bu doon ab yonent dina xam kan mooy ndaw si waaye seydina isa yeesu krista mbokk yi kenn du moom kenn du moom ndaxte moom moom mooy dégg li ñu waxul ak làmmeñ moom mooy jàng li nekk ci xalaatu doomu aadama yi moom mooy wax li kenn waxul moom moo xam li kenn xamul moom moo xam li doomu aadama bi di mébét ci biir xolam te ak seegul ci làmmeñam waaw kooku mooy seydina isa yeesu krista te bu ma waxee ni kooku mooy Seydina Isa Yeesu Krista seen xel yi am na fu mu war a dem noonu Seydina Isa Yeesu Krista daal di tontu pharisien ba nga xam ni loolu lépp daf ko xalaatoon ci xolam waaye àggul ci làmmeñam mu ne ko Simon waaja na ko naam mu ne ko xam naa bu baax kan mooy ndaw si waaja daal di tiit waaw mu tiit mu tiit mu ne ko xam naa bu baax kan mooy ndaw si waaye daf laata ma lay tontu ci mbirum ndaw si dafa am lu ma la bëgg a laaj yow Simon waaw mu ne ko dafa amoon ñaari nit ñoo xam ne dañu ameloon bor benn borom alal nañu jàpp ni kenn ki amel na ko fukki million kenn ki amel na ko ñaari junni mu woo leen ñoom ñaar ñëpp ñu ñëw ndaxte mënuñu ko woon fay ki am ñaari amee boru ñaari junni bi mënul fay ki amee boru fukki million ba mënul fay mu ne leen jéggal naa leen yéen ñaar ñëpp bor yi ngeen ma ameloon waaw mu ne ko Simon muy kilifa diine ba mu ne ko naam sang bi mu ne ko ci sa gis-gis kan moo ciy gën a bég kan moo ciy gën a bëgg borom alal ba simon di kilifa diine bi daal di tontu seydina isa yeesu krista ne ko ci sama xalaat de mooy kamu baal fukki million ya seydina isa ne ko wax nga dëgg waaw ndaxte ku ñu ku ñu jéggal lu bari dina bëgg lu bari waaye ku ñu jéggal lu tuuti dina bëgg lu tuuti it mbokk yi loolu jàngat bu rëy la ci suñu diggante ak yàlla sunu borom ndax ñun yëg nañu boru baakaar yi ñu amel yàlla ndaxte xam nañu dayoo ba ndaxte wala dañoo yaakaar ne lu tuuti la waaw ndax dañoo yaakaar ne ñun suñuy baakaar lu tuuti la li li ñu def daal daanaka jarul dara yàlla mën nañu ko jé jéggal ci lu gaaw a gaaw a gaaw bu dee loolu mooy sa gis-gis kon bëgg ba ngay bëgg yàlla day tuuti waaye bu réeree mbir kenn ku nekk ci ñun la mu ameel yàlla ci boru bàkkaar xel mënu koo natt waaw téere bu sell bi nee na amul kenn ku jub amul kenn ku sell ci bani aadama yi ñun ñépp ay bàkkaarkat lañu bu ñu yeewoo suñu kaw lal ba ni ñuy delloo ca lal ba di tëdd ñun ñépp ay bàkkaarkat lañu loolu la téere bu sell ba wax waaw loolu la téere bu sell ba wax seydina isa yeesu krista mu ne simon muy kilifa diine ba mu ne ko naam sang bi mu ne ko yow de da nga teg sa bopp koo xam ni ku ku ku ku ku ku ku ku macha allah koo xam ne amalul yàlla benn bàkkaar yow da nga jub yow da nga sell amoo benn jafe-jafe ak yàlla tey nag ma wax la ni yaa ngi nax sa bopp mu ne ko gis nga bi ma duggee ci sa kër gii joxloo ma ndox ma raxas samay tànk bi ma duggee ci sa kër gi foonuloo ma maanaam bi ma duggee ci sa kër gi teraloo ma ni ñuy teralee kilifa diine bi ma duggee sa kër gi teraloo ma ni ñuy teralee ab yonentuk yàlla bi ma duggee ci sa kër gi teraloo ma ni ñuy teralee jaamuk yàlla rek waaw ndax képp kenn ku mu ci mënta doon ci ñun téere bu sell bi nee na yàlla daf ñu bind ci melokaanam kon dafa am cër boo ko war a jox da nga ko war a wég da nga ko war a yëg da nga ko war a jox cër te yow simon bi ma duggee ci sa kër gi defoo loolu kon bàkkaar nga xam ngeen téere bu sell bi day wax ni mën a def lu baax te defuloo ko ci bàkkaar la bokk mën a def lu baax te defuloo ko ci bàkkaar la bokk kon seydina isaa yeesu krista won na simon ne mbindeef yépp ak nu seen daraja nu seen xam-xam nu seen diine mënta toll ay baakaarkat lañu dañu ameel yàlla bor te ku ci yaakaar nag ne bor ba bëriwul yaa ngi nax sa bopp ñun ñépp lañu ameel yàlla ca boru baakaar mënuñu koo fay de toute façon ak nu mu mënta demee ngeen jéggal ma tubaab bi ak nu mu mënta demee kenn ku nekk ci ñun bor ba nga ameel yàlla nga xalaat ni bëri na wala néew na munoo ko fay looloo waral yàlla yebal seydina isaa yeesu krista téere bu sell bee ko wax ba àpp ba jotee yàlla yabal na jenn doom ji mu am ci àddina muy seydina isaa yeesu krista ñu ne ko ngir lan mu ne ngir mu dee ci bant bi lu tax ngir tuur deretam ngir jéggalu bàkkaar yi soxna si loolu la xamoon loolu la xamoon mu daldi agsi seydina isaa yeesu krista ne ko demal jéggal nañu la say bàkkaar waaw demal jéggal nañu la say bàkkaar yow soxna si waaw déggal boobu wax mu ne ko demal jéggal nañu la say bàkkaar waaw baal nañ la say bàkkaar ndaxte seydina isaa yeesu krista mooy kiy jéggale bàkkaar yi mooy kiy baale bàkkaar yi lu tax ndaxte moom mooy kiy yor lii fay borug bàkkaar borug bàkkaar la koy fay mooy deret la deret ba koy fay moom seydina isaa yeesu krista moo ko tuur ci bant bi kon yow mi may déglu mbokk mi lii laa bëgg nga jàngee ko ci téere bu sell bi day wax ci làmmiñu seydina isaa ne la ko dalee ci jamono yonent yàlla yaxya ba tey jii nguurug yàlla ubbi nañu ko te ñi am pas-pas ñoo ciy dugg waaw gis nga soxna si bu xooloon ne fii kilifa diine la mënuma fa dugg soxna si bu toogoon rek naan ah est-ce que su ma demee dina ma dina ma nangoo dalal mbaa du ma ñàkkee kersa mbaa nit ñi buñ ma fa gisee may dugg aajoom du faju te ñun nag dañu nekk ci réew moo xam ne muy Sénégal looloo tere aajo yu bari duñu fajoo fii kon yow mi yëg ni da nga am bàkkaar yow mi yëg ni sa ruu méngoowul ak bëgg-bëggug yàlla yi bu ci xool doomu aadama yi ndaxte boo ci xoolee doomu aadama yi ba nangoo ñëw ci Seydina Isaa ngir mu jéggal la say bàkkaar ëllëg doomu aadama yooyu duñ la ubbil buntuk àjjana mënuñu ko caabi yi Seydina Isaa ko yor loolu la téere bu sell bi wax boo ci xoolee waa koñ bi wala nga xool ci waa dëkk bi wala nga xool ci mbooloo mi ba nangoo ñëw ci Seydina Isaa ak say jafe-jafe wu bàkkaar ngir mu teggil la ko ëllëg waa koñ bi ak mbooloo mi mënuñu la koo teggil te duñ la ubbil buntuk àjjana ndaxte caabi Seydina Isaa moo ko yor loolu la téere bu sell bi wax kon bu ci déglu doomu aadama bul ne mbaa duñu ma waxal li mbaa duñu ko gisee nii mbaa du ma ñàkk li mbaa du ma taxalikoo li amul lenn looy ñàkk loo xam ne sa ruu ëpp ko njëkk waaw amul lenn looy bàyyi loo xam ne sa ruu ëpp ko njëkk waaw kon lépp lu mu jar rek war na la ko jaral lépp lu mu laaj rek war na la ko laaj jaral ba nga mën a daje ki nga xam ne mooy Seydina Isaa yow it mu mën la jéggal say bàkkaar te sa sa sa sa sa sa aajo faju ba abadan kon mbokk yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax jërëjëf ci déglu bi nga xam ne déglu ngeen ma ko fi ci suñu émission bii ñu dippee kàddu gu sell gi di ñaan kàddu yi nga xam ne dégg nañu ko fi yàlla def ko barkeel ak ngëneel ci dundu kenn ku nekk ci ñun di ñaan jàmm sax ci réew mii nga xam ne ci lañu nekk mooy Sénégal jërëjëf.
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale suñu émission. maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35.
إن